al ajrumiya dégg nga ñu ngi ci mustasna baabul istisna bunt bi jàngale setti istisna mooy nga wax loo xam ne dafay dugalaale am mbir yépp dafay dugalaale lépp waaye nga am ñoo ci génne lañ ca génn nag mooy mustasna ci lañ ko génnee mooy mustasna minhu lañu ko génnee jumtukaay bi nga génnee ne mooy adaatul istisna jumtukaay bi nga settee ni ki jaa dikk na al qawmu nit ñi illaa muhammadan lu mooy muhammad al qawmu mooy mustasna minhu ba nga ne jaa al qawmu dañ yaakaar ne ñëpp a ñëw nga génnee ci biir xawm yooyu muhammadan kon muhammad mooy mustasna mooy dañ ci génne fañ ko génnee ci xawm wala ne moom ñëwut li ñëw gannaaw adaatu istisna gi muy illaa wala mbokkam yooyu loolu boo xoolee atteem dafay safaanoog li ñëw njëkk jumtukaay sett boobu jaal xawm foofu day wane ne nit ñi ñëw nañ illaa muhammadan day wane ne muhammad ñëwut li ñëw gannaaw illaa gi dafa wane att bi amut ci moom li ñëw njëkk illaa gi dafay wane ne att bi am na soo waxoon maa jaa dikkul al qawmu nit ñi it illaa muhammadan wala illaa muhammadun soo boobaa gis nga maa jaa al qawmu ñu njëkk ñi danga ne nit ñi ñëwuñ illaa muhammadan foofu day wane ne muhammad ñëw na loolu mooy xatteeb istisna su fekkee nag wax ji dafay saxal wax ji dafay saxal mooy wax ji dàqut ni ki jaa al qawmu te tudd nga mustasna minu bi li ñëw gannaaw illaa googu gannaaw jumtukaay sett gi loolu moom da nga koy nasab gannaaw illaa googu jaa al qawmu illaa muhammadan ngay wax parce que wax ji dafay saxal dàqut jaa dikk na al qawmu nit ñi dafay saxal dàqut tudd nga mustasna minu bi la nga seetee mooy jaa dikk na xaw mu nit ñi tudd nga ñi su boobaa illaa muhammadan rek nga mën a wax lu mooy mooy muhammad dégg nga hmm. jaa dikk na xaw mu nit ñi illaa muhammadan lu muhammad dégg nga su fekkee nag wax ji dafay dàq te tudd nga mustasnaa minhu bi mën nga ko badal mën nga ko mën nga ko nasab maa jaa dikru alqawmu nit ñi mën ngaa wax illaa muhammadan nasab ko mën ngaa wax illaa muhammadun muhammadun nekk badal ci qawmu wa badal ma fay ma foon wala mu tarafi addam mutazahir al aqri yaa ngi dégg lu mu wax kon jaal qawmu illa muhammadan rek la ma nekk parce que wax ji dafay saxal te tudd nga mustasna bi boo ko dàqee nag mën naa mën nga ko badal mën nga ko kii ni maa jaal qawmu illa muhammadan su fekkee tuddoo mustasna minhum bi dafay mel ni bu fa illaa nekkutoon li ñëw gën naa illaa nu mu mel maa jaa dikkut illa muhammadun rek comme maa jaa muhammadun parce que tuddoo mustasna minhum bi tuddoo qawmu gi ma raaytu illaa muhammadan parce raaytu rek illaa muhammadan lu may muhammad raaytu muhammadan rek maa marartu illaa bi muhammadin comme mu ngi mel marartu bi muhammadin rek jaana foofu day mel ni bu fa illaa moom lañ sa settee seen bopp moo yore atteeb li ñëw gannaaw illa waaye na li ñëw gannaaw xeeru moom mu daaf ili rek la jaa al qawmu xayra muhammadin xayra rek nga mën a wax foofu maa jaa al qawmu xayra muhammadin wala xayru muhammadin baatu xayru gi si boobu mooy mel li ñëw gannaaw illa maa maral nu mu tuddati ما جاء غير محمد ما رأيت غير محمد ما مررت بغير محمد كون غير موم ميم اك سيوا واي سيوا موي دو دو فين موتاخ ماسك بي دو فين نيوم داني يوري مانا ليغا خامن مو نيو غناو الا خام نغي دم يوي موي كيبي موم لاني بغا جانغي مو نيو حروف الاستثناء حرف ستي حرف ييغا خاني موم لاني سيتي سماني تيم جوروم xaraf yi settee juróom-ñett lañ waaye ñoom illaa mooy illaa wa xayru ak xayru mooy lu dul wa siwaa ak siwaa wa suwaa ak suwaa wa siwaa ak siwaa u mën ngaa waxit wa suwan ak suwan kon illaa ak xayru ak siwaa ak suwaa ak sawaaw ak siwaaw ak xalaa ak ada ak xaasha mën nga ko def sa juróom-ñeent parce que sawaaw mën naa nekk siwaaw mën naa nekk illa xayru siwaa suwaa sawaaw siwaaw ak xalaa ak ada ak xaasha dégg nag muy xalaa ak ada ak xaasha moom dana ñëw li ñëw seen gannaaw ñoom li ñëw seen gannaaw mën naa nasab soo ba xalaa ak xadda ak xaasa ay xarfu ay fenlu maadi la ñu doon li ñëw seen gannaaw mën naa jar soo ba xalaa ak xadda ak xaasa gi ay xarfu jar lañu doon dégg lu mooy nag maa am seen gannaaw su fekkee dangaa dugal maa gannaaw xalaa wala xadda su boobaa gannaaw xalaa ak xadda moom nasab rek lay mën a doon waaye nag xaasha maa du ci dugg maa moom ci xalaa ak daa rek lay dugg parce que maa googu maa masdariya la du dugg mukk lu mooy ci fenlu kon bu duggee ci xalaa ak daa dañuy xam ne lii ay fenlu maa lañ léegi mënatu ñoo nekk xarfu jar yooyu dana ko jàngale ji darsu boppam fal mustafna lañ seet bi illaa ci illaa jëlal atte ba dañ seet ci illaa yunsabu dañ ko nasab iza kaana bu nekkee alkalaamu wax ji taaman di aji matale muujiban muujaban di aji saxal saxal mooy dàqut bu dee wax ji mat na wax ji mat na mooy tudd nañ mustasna minhu ba muujaban mooy wax ji dàqut ni ki jaa naxwu comme sa wax ji nga ne xaama taxaw na alqawmu nit ñi الا زيد موي زيد تودغا مستثنى من مام لاغا генي زيد تودغا كو موي القوم بي كون واخ جوج واخ جو مات لا تا واخ جي داكو دا فاي سخال كون واخ جوج موجبان لا موجبان موي واخ جي سخال سوبا لي نيو غناو الا غي دام كاي نصب كام نو دا كام نو او كو ديفه قام فعل ماضي القوم فاعل لا دنجو اعراب ليغي الا ادا استثناء زيد منصوب على الاستثناء بالا دنجو نصب سي سيتي نكو سيتي الا mm -hmm. dégg wa xaraja génn annaasu nit ñi illaa amran lu mooy amr foofu wax ji mat na parce que amru foo ko génnee ci naasu tudd nga kon mustasna minu bi wax ji mat mooy tudd mustasna minu bi te wax ji tamit dafay saxal dàqut xaraja naasu illaa amran dafay wane nit ñi génn nañ kon wax ji dafay saxal dàqut te tudd nañ mustasna minu bi foofu it ñëw gannaaw illaa dafa war a nasab nasab rek la mën a doon boobu misaal bu njëkk mi dégg nga mhm. wayn kaan nam nekk na alkalaamu wax ji nag man fii yen di aji dàq taa man di aji matale dégg nga su boobaa jaasa na fii ci moom badal wan nasb ak nasab al istisna si sett comme noonu ma ko waxee bu fekkee wax ji mat na mooy tudd nañ mustasna min ump maanaam la nga settee la nga setti fa ko settee tudd nga ko mooy wax ju matale dafay daq su boobaa la ñëw gannaaw illaa mooy mustasna ga mën naa nasab al istisna ci set giñ ko sete mm-hmm. ci illa mën nañ koo badal li ñëw njëkk illa دايم من الكوبدا ليو لك إلا نكي ما قام تخوت القوم نني إلا زيد باسكو واحد دا فاي داق موتاخ واحد ماتنا تود نني زيد فنكو генي موي مستثنى من تود نكو القوم مي واحد دا فاي داق ما قام تخوت القوم نني إلا زيد سوبا إلا دار استثناء زيد بدل لتي وبدل مرفوع مفعول ولا نري إلا زيدا وإلا زيدا من غير إلا زيدا بس واحد دفع داخل موتور لي لي نك نجيس فو خم دني واحد دفع سخل منام دفع سخل تمتنا تلني وجنا إلا جني رفع كويس وبعدم كي تابل لكن أقول وقف الشرب منه إلا قليل منهم شربونا نن منو تيمو illaa qalil qalil googu ci waaw googu ci fexeel bi lañ ko sette tudd nañ mustasaamin wax ji dafay dàq mais illaa qalilun la alquran wax minhum rafan qalil hmm? euh, su boobaa da nga koy inraabe fa sharibu naan nañ minu ci ndox moomu lam ñu taayoon topput ko illaa qalilun dégg wax ji wax ji dàq la foofu لم يتابعوه توبنكو إلا قليل يدق فعل بوبو موتخ ني رفع كون سوبا فوفو دا ناي غيس جملة بوبو دافاي دق خام نغا نو فوف جملة بي نيكوت نيكوت تام موجبا واي منفيا لا دافاي دق لم يتابعوه له فوف سو غيس تي ميل نو رك دنجكاي تابعو نو نيكو رواح الجمعة واجب على كل محتلم إلا أربعة am na ñu rafaa arbaatun foofu waxul jumaat maanaam dem julli ci jumaa dafa war ci képp ku gént wax ji dafay saxal amul leen luy dàq foofu arbaatun dañ ko seet ci képp ku gént mais illa arbaatan la waroon doon wax ji dafay saxal tudd nañ mustasamini waaye illa arbaatun la su boobaa dag naan maanaa ba mooy rawaxul jumaati waajibun ala kulli muxtalimin ولا يتخلف بوم ياك دم جمعة إلا أربعة لا يتخلف جوجو دفع دق دين يرنتو أحنا الناس نيجي هل كا الكونين إلا العالمون لما يبرم خم خمي عالمون اللي ننسى تيجي برم خم خمي تواحد دفع دفع سخال mo xane wala alimuna borom xam xam halka halku na ñom ñep illa la amilon lu may ñuy jëfé sen xam xam وتخم خمس خطيون على مواقات ولا عاملون أن يجي في سن خم خم نب هل إلا المخلصون الوين يسلل مم. والمخلصون أن يسلل على خطر أن يمشي داز عظيم بماغ كل كن نأكل سجام بس كفن يسلل لبوا في يقف في دفرته لكن فوفو الناس هل كا يبدل بوكو العالمون لما يبرم خم خميل dañ ko settee ci annaasu moo tax nag dem jàngi wóor de toog foofu rek naan nangam nangam jàngal wala nga déglu ñuy jàng parce que nit ñëpp alku nañ lu mooy borom xam-xam yi mais borom xam-xam yi buñ jëfewul seen xam-xam la alku xam di jëfee seen xam sax ak xam sax alku bu fekkee amuñ ixlaas moo tax mbir mu yombut ñooy sellal tamit mucc ko ñu ngi ci dansé péere boo xam ne iblis yéegoon na fa waaye ba mu yàqoo moo gën a bon ñëpp foofu noo koy laye annaasu mooy mustasna minum tudd nañ ko wax ji dafay saxal dàqut mais illa al aalimuuna dafa rafa man nga rafa ngi mooy waaw ilaano jëmu zakk saalim waaw lay rafa soo war na annaasu xalka wala yanju illa al aalimuun wala yanju dafay dàq wala yanju du mucc illa al aalimuun ñu dagg wala ko foofu loolu lañ دين والعالمون هلكا ولا ينجو إلا العاملون والعاملون هلكا ولا ينجو إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم دول موي كيبي كون فو فك واحد ينك واحد يقوم دا فاي سخال دقوت لي نيو غنا الا غي رفان رك امنا فعل بو نفداغ بو خامل دا دق نيار صاف اما موسى سام بودي جمله بي موم دا فاي دق لي نيو غناو الا غي Euh, boobu mën naa nasab mën naa koo badal ci li ñëw njëkk illa yaa nga xam ne moom wayn kaana nekk alkalaamu wax ja naaq sa ndaaji wàññeeku kaana nekk na ala xasabil ci kem jëfin yi su fekkee wax ji dafa wàññeeku wax ji wàññeeku mooy tudduñ mustasna minhu bi la nga génnee la ñëw gannaaw illaa gi nga génnee ko tuddoo ci lañ ko génnee su boobaa dafay mel ni bu fa illaa nekkutoon la ñëw gën a illaa lu mu war a doon bu dee rafan bu dee faay la nga rafan ko bu dee mafoon bii nga nasab ko bu dee jar la nga jar ko naxwu comme maa qaama taxawut illaa zaydun lu mooy zayd dégg maa qaama taxawut illaa zaydun zayd si loo ko génne génne ci maa qaama di la nga ko génnee tuddoo kon wax ji matut waaye boo defutoon illaa gi looy wax maa qaama zaydun kon maa qaama illaa zaydun rek nga wax maa darabtu dóoruma illaa zaydan lu mooy zayd maa darabtu dóoruma illaa zaydan lu mooy wama marartu romuma illa bi zeydin wa zeydu foofu ci sànli mooy maa darabtu zeydan wama marartu bi zeydin rek parce que foofu tuddoo li nga génnee zeydu maa darabtu dóoruma illa zeydan lu mooy zeydu zeydu ñoo ko génne tuddoo ko kon wax jooju naa xis la manam istisna da ngay xol bu dee wax ji wax ju mat la te dàqut wax ji man moy tudd nga musna min te dàqut lu ñëw gannaaw illaa nasab ko bul xol boko rafaay nak jox ci def ko tawil bañ la non so fekke da fay dàq dàq wala luy niru lu dàq manam tere ak istifham sax dàq dañ koy jappé wala yaltafitu minkum ahadun illa imra'ataka mën naa illa imra'atuka am na ñu koy jàng dégg nga mën naa illam ra attaka parce que wax ji day dàq mën nasab mën nañ koo badal si ahadun kooku illam ra attaka wala illam ra yëpp sax am na eh, ibnu dafay jàng badal ko ci ahadun dégg nga eh, laa gi laa naahiya la foofu day tere yaltafitu fi'lun mudaari'un majzuumun bi laa naahiya wa alaamatu ismihi sukuun min harfu jar kaaf damiirun muttasilun mabniyyun alaa damma fi mahalli jar bi min والميم علامة الجمع امرأة من غلف أحد فاعل كلا يلتفت مرفوع علامة رفيع الدم متزايد على آخره امرأة من أنك بدل تي أحد إلا أداة استثناء امرأة بدل تي أحد وبدل المرفوع مرفوع علامة رفيع الدم متزايد على آخره لأن ابن كثير جانا أبو عمرو بوري امرأة مك هناك مستثنى منصوب على الاستثناء بإلا luñ sett la ñu nasab ko ci istisna ci illa foofu teree fa xam daf ne bu mu gert dafa tere foofu dégg istifham tamit ci dàq lañ koy jàppee laajte faal yuxliku faal yuxliku illa al qawmul fasiqun faal yuxliku ndax danañ alak illa al qawmul fasiqun qawmu waxoo sax fi nga koy setti moo tax mu ngi mel ni yuxliku illa al qawmu rek dégg waaye wax ji bu fekkee dafa am laajte loolu ba léegi dàq rek dañ koy tuddee dégg kon istisna bu fekkee wax ji dafay dàq te tudd nga la nga ko settee li ñëw gannaaw illaa nasab ko léegi-léegi nag li ñëw gannaaw illaa bokkut ak maanaam la nga settee mu ñëw gannaaw illaa bokkut ak xeet la ñëw njëkk illaa la nga ko seetee léeg-léeg ñàkk boo xeet loolu lañ tudd al istisna al munqati' istisna gu dagg yii ma la wax yëpp al istisna muttasil la maa qaamal qawmu illaa zaydun wala illaa zaydan nit ñi taxawuñ lu mooy zaydu wala zaydan foofu zaydu ci nit ñi la bokk léegi boo waxoon qaamal qawmu nit ñi taxaw nañ illaa ximaaran lu mooy am mbaam mbaam lu mu doon mbaam bokkul ci nit ñi كسيتي نغو تي قوم نين فوف استثناء لا غوا استثناء المنقطع بو دغ لا سو فكنا واحد دا فاي داق استثناء يو منقطع لا آه، آه، نكوت متصل سو آه، ام نيو خام ني دنج كو ورا نصب ام نيو نكو دغنال ا Mm. Eh, kii mm, badal ba tey mm. mu ne maa qaama ximaaran am na am na sax la war a waaye illa ximaarun tamit am na ñu koy wax maa jaal qawmu illa ximaaran wala illa ximaarun waaye comme que daal mun xattee la foofu te day dàq foofu li mooy nga nasab ko ما طغى القوم إلا حمارا dégg bu fekkee nag wax ji tuddoo mustasna minhu gi foofu xoolal la mu waroon nekk ci jumla bi rek nga daal di ko jox atteem loolu yaakaar naa ne mooy atteem mustasna defe naa ne tamit wax ji sorewul mu ne wal mustasna lañ set bi xeyri ci xeyru wasiwaa ak siwa wa ak suwan wa sawaaun ak sawa majruurun lu ñuy jar rek la laa xëyru amul leneen lu dul loolu luñ sete xëyru ak siwa ak suwa ak sawaawun maanaam la ñëw seen gannaaw danga koo war a jar ñu nekk mu ilay dégg mm-hmm. waaye ñoom moom dañu yore atteeb li ñëw gannaaw illaa illaa yii nii bu fekkee wax ji dafay dàq dafay saxal waxal qaamal qawmu xayra xayra zaydin xayra rek la mën a doon xayra ak ak yi ma tudd nii yëpp ñoo yem benn at dégg nga da nga koy nasab bu fekkee wax ji dafay dàq maa qaamal qawmu xayra zaydin wala xayru zaydin dégg nga waaw Mm-hmm. loolu lañ koy mm-hmm. noonu lañ koy jàppee mm-hmm. su ko defee nga wax maa qaama xayru zaydin maa raaytu xayra zaydin noonu noonu la dégg nga hmm? soo ko defee mun xatin nga def rek bu dee da ngaa waral nasab gi foofu nga ne maa qaamal qawmu xayra ximaarin parce que foofu munqatiba noonu lañ koy àtte dégg nga kon xayru ak nu mu tuddati siwa ak suwaawun ak sawa ñoom dañuy mel ni li ñëw gannaaw illa waaye ñoom li ñëw seen gannaaw moom mu daa fi rek la mën a la mën a doon dégg mu ñëw ci wal mustasna lañ seet bi xalaa ci xalaa wa adaa ak adaa وحاشا أكحاشا يجوز دنا دعا نصب نصبكو وجره أجركو نهو كم غني قام تخون القوم نني خلا زيدا لما زيد ولا غني خلا زيد لنيو خ نك خلا جن أو خلا أقعد من غو نصب نك قام تخون القوم نني خلا زيدا لما زيد ولا خلا زيد لما زيد بوري في خلا زيدا خلاف فعل دي مبني على الفترة المقدرة على آخره وفاعل ضمير مستتر تقديره هو زيد مفعول به منصوب يعني بني خلا زيد خلا حرف جر زيد اسم مجرور به خلا عدا ابن لا حاشا نون لا وتمر وعدا عمرا ولا لموي عمرو ولا وعدا عمرا وحشا بكرا لموي بكر ولا وعشا بكرا اما ما مصدريه بنجيتو خلا اك عدا فوف خلا فعل ak ada foofu xalaa feenu عادات فعل ماضي للمدن قام تخن القوم نني ما خلا زيدا رك نمنا وخ ما جما مصدر خلا فعل ماضي له فاعل به ولا زيدا مفعول به فوف نور لنا وخ بس كما جو ما مصدر دو غلو ما تي فعلو دين واي نك حاشا مم ما جو منكو منكو جيتو لول ماي نفعل تي تنك istisna am na almuttasil lu jokk ak almunqati lu dëgg bu fekkee la nga génnee gannaaw illaa gi dafa bokk ci xeetu la njëkk illaa gi foofu istisna bu muttasil la dafa jokk qaamal qawmu illaa zaydan fekkee dafa ñëw nag bokkute ak ko génnee soobaa munqati la ni ki qaamal qawmu illaa ximaara waaw su fekkee wax ji mat na tudd nañ mustasna minu bi te wax ji dafay saxal li ñëw gannaaw illaa nasab ko su rafaane rek xamal ne am na luñ fanatare comme noonu ñu ko waxoon su fekkee wax ji dafay dàq la ñëw gannaaw illaa mën nga koo nasab mën naa topp la ñëw njëkk illaa nekk fa bëtal suy dàq nag te muy mun xate am na ñu ne danga koy nasab rek jeex na maa xamal xaw ma illaahi maalam nga jàpp loolu su fekkee nag la ñëw gannaaw illaa kooku euh, tudduñ mu sasaminu ba wax ji matut foofu la ñëw gannaaw illaa dafa mel ni bu fi illaa nekkutoon bu dee faa mu rafa bu ma fonu bi mun sax bu dee luñ jar mu jar amaa lañ cettee xayru ak siwaag yooyu loolu mooy deuxième partie bi yooyu moom ñoom seen bopp dañuy mel li ñëw gannaaw illaa boo fekkee jumla bi tudd nga mustasamir bi te day saxal xeyru googu ak ak ya topp si xeyru dañuy nasab rek su fekkee la ñëw jumla bi dafay dàq xeyru ak la topp ci xeyru mën nañoo nasab mën nañoo badal ci la ci gannaaw léegi jumla bi matul nag xeyru ak la topp ci xeyru dañuy mel bu fa illaa bu nekkutoon bu ñu waree rafaa rafaa bu ñu waree nasab nasab bu ñu waree jar jar jërë ñoom si waay jar gi mënul feeñ ci mujj ndax dañ koy nettali ci mujj ga maanaam masque iraab mën ñoo feeñ ci mujj waaye li ñëw gannaaw xëyru ak siwaag yooyu moom mu daaf ilay la dafay jar amul leneen xalaa ak addaa bu ci maa ak yee jiitoo li ñëw seen gannaaw dafay nasab rek ndax ñoom feeñu maa di lañu nekk la ñëw seen gannaaw moom foofu ko jiitu fekkee maa masdar jiitu leen xalaa ak addaa ak xaasha ñoo yem la ñëw seen gannaaw mën naa nasab ñoom ñi ay finlu mën naa jar ñoom ñi ay xarfu jar lii mooy tënk darsu bi i'raab baabul istisna hada baabul istisna baabu xabar li mubtarin mahzuf taqdiru hada ha harfatan bi za ismu ishaara mum nara sukun fi maana rafi baabu xabaru mubtada la dégg nga istisna mudaafi lay la waaw li istisna xuruf mubtada mafhum wala mutarafi adam mutazahira fi aqre وهو مضاف الاستثناء مضاف اليه مجرور ولا مرتين على الكسر او ظاهر على اخره خبر الاستثناء خبر حروف كن مرفوع ولا مترفع دمت او ظاهر على واو للاستئناف هي دمير منفصل مبني على فرد في محل رفع مبتدا الا دنجا الا قبر هي مبني على السكون في محل رفع وحرفات غير معطوف على الا والمعطوف على مرفوع مرفوع ولا مترفع دمت او ظاهر على اخره واو حرف عطف سوى معطوف على إلا والمعطوف على المفهوم مفهوم ولا مضاف إلا ضمة المقدرة إلى آخره واو حرف عطف سوى معطوف على إلا والمعطوف على المفهوم مفهوم ولا مضاف إلا ضمة المقدرة إلى آخره واو حرف عطف سواء معطوف على إلا والمعطوف على المفهوم مفهوم ولا مضاف إلا ضمة الظاهرة على آخره بمضاف فين ديم من سوى سواء تمت ديم واو حرف عطف خلا معطوف على على إلا مم على سكون دينغا بودي حرف لا في محل رفع دينغا وعرفات من عدا ما تفن على إلا مبني على سكون في محل رفع وعرفات من حاشا ما تفن إلا مبني على سكون في محل رفع فا فا الفسيرة المستثنى مستر ومفهوم ونور مطر في أدم متزايرة أدم متمقدرة راقية منام الظهر التعذر بعد فجر إلا دينغا أداة الاستثناء من على السكون في محل جر والجار والمجهول متعلق بمستثنى ينسب فعل المضارع مبني للمجهول ونائب فاعل ضمير مستتر تقديره هو إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه إن إيه، كان الفعل الماضي ناقص يرفع اسمه وينسب الخبر الكلام اسم كان مرفوع ولا متفع دم الرزايا على آخره تاما خبر كان منصوب ولا متنصب يفر الرزايا على آخره والجملة من كان واسمها وخبرها في محل جر بإضافة إذا إلا إذا دفعنا لا فوفو موجبا خبر جنجا موجبا منغوف إلى بين رك موجبا دين ونقول خبر ثاني ومن هناك نعت موجبا نعت للتام ونعت منصوب منصوب ومنصوب فترة الظاهر على آخره نحو خبر لمبتدا محذوف تقدير وذلك لول إعراب هناك قام الفعل الماضي مبني على الفترة القوم فاعل مرفوع بدم إلا أداة استثناء زيدا من منصوب آه، اسم منصوب على الاستثناء بإلا ولا متنسب لفترة ظاهر على آخره واو عرفات من خارج فعل ماضي من على فترة الناس فاعل مفهوم ولا مترفع دم ظاهر على آخره إلا أداة استثناء عمرا اسم منصوب على الاستثناء بإلا ولا متنسب لفترة ظاهر على آخره دينا واو عرفات إن حرف شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل شرط والثاني جوابه وجزاؤه كان فعل ماضي ناقص يرفع اسمه وينتب الخبر في محل جزم آه، آه، فعل شرط الكلام اسم كان مرفوع ولا مترفع دم الزائر على آخره منفي خبر كان منصوب ولا منسب الفرد الزائر على آخره تاما دينغ نعت لمنفي ونعت منصوب منصوب وعلامة نسب الفرد الزائر على آخره جاز فعل ما من هذا الفتى دينغ في محل جزم جواب الشرط في حرف جر هذا من متسم على الكسر في محل جر في البدل فاعل جاز مرفوع وعلامة رفع دم الرزايا العراقي ورفعت النصب معطوف على البدل والمعطوف على المنصوب على المرفوع مرفوع وعلامة رفع دم الرزايا العراقي على حرف جر الاستثناء اسم مجرور بعلى وعلامة الكسر الرزايا العراقي والجار والمجرور في محل النصب حال على الاستثناء حال تكوني على الاستثناء ما هو خبر لمطر المحذوف تقديره وذلك قم نمرون بيون ما عرف النفين قام فعل ماضي مبني على فتح القوم فاعل مرفوع ولا مطر في مطر الظاهر الآخري إلا حرف استثناء زيد دينغا زيد بوربي زيد بدل من القوم وبدل المرفوع مرفوع ولا مطر في الدم مطر الظاهر الآخري بوربي زيدا منك اسم منصوب على استثناء بإلا يعني ما قام القوم إلا زيدا واو حرف عطف من حرف شرط جازم يجزم فعلين كان فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينسب الخبر في محل جزم فعل الشرط دينك الكلام اسم كان مفهوم ولا مترفي الدمة أزائر آه، على آخره ناقص قبل كان منصوب ولا متنسبي الفترة الظاهرة على آخره noonu lañ koy kaana bu ñaareel bi feelu maa di naqis moom yenn si bu ismail sama xabar dégg nga fi ma dégg nga kaana bu ñaareel bi dégg nga ala xarfu numu tuddati jarin حسب اسم مجرور بعلى ولا مستتر الكسر ذا الراقي والجار المجرور متعلق بمحذوف xabaru كان كان gu ñaareel نعم كان نكرا نعم. وفعل دم wa مو dem wees تقدره demir musatin taqdiru كان في المر ناقص من نار mar naaqis min nar fata يرفع اسمه مو خبر واسمه تقدره هو على عرف جر حسب اسم مجرور بعلى ولا مرجري الكسر ازار راقي والجار المجرور متعلق بمحذوف قبره كان جيم كان قلنا للقول دفع في محل جزمي جواب الشرطه كان في ماض ناقص من الفتى في محل جزم جواب الشرط يعني اسمه دمير مسلم تقدير هو على حرف حسب اسم مجرور بعلى وراء متجري الكسر ظاهر اخر والجار مجرور متعلق بمعزول خبر كان على عامل هو ملاف محسب وعامل ملاف اليه مجرور وراء متجري الكسر ظاهر اخر انه خبر لمبتر المعزول تقديره وذلك مع نافرة قام في ماضي مبني على فتح إلا أداة استثناء ملغاة لا عمل لها دنكو انا أمول لغي زيد فاعل مرفوع ورمى مترفع دمة ظاهرة على آخره دين لولا لنكو يا ربي ما قام إلا زيد نصف وما ضربته وما ضربته وعرف عطف ما مع نافية ضربت فعل مار من على السكون الاتصالي بتاء متحرك وتاو دم متصل من الدم في مار الفاعل إلا أداة استثناء ملغاة لا عمل لها زيدا مفهوم به منصوب ولا متنسب الفترة الزائرة آخرين آخره وعرف عطف مع مع نافية مررت فعل ماضي ممنوع رفع سكون الاتصال بتاع المتحرك وتاء ضمير متصل ممنوع الدم في معرض الفاعل إلا أداة استثناء ملغاة لا عمل لها باء حرف جر زيد اسم مجرور بالباء ولا متجر الكسر أزار الآخر والجار مجرور متعلق بمررته إيه، استثناء به المي والمستثنى آه. واو الاستثناء المستثنى مفترى ومرفوع على مترفع الضمة المقدرة على آخر منام من زهرها التعذر باء حرف جر دائما غير اسم مجرور بباء ولا متجري الكسر زار الراقي والجار المجرور متعلق بمستثنى ورفعت سوى معطوف على الغير والمعطوف على المجرور مجرور ولا متجري الكسر المقدر على آخره ورفعت سوى معطوف على الغير والمعطوف على المجرور مجرور ولا متجري الكسر المقدر على آخره ورفعت سواء ومدفع فترة ديلر معطوف على الغير والمعتبر المجهول المجهول ولا مرتفع كسر الظاهر على آخره دائما والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور مجرور ما خبر مستثنى جنج كنت مرفوع ولا مرتفع دمر الظاهر على آخره لا غير لا لا نافيرة تعمل عمل ليس غير اسم لا دائما amul lay ما mooy dafay rafan li طبعا كان لا وقف ليس اسمه كان لا وقف غير اسم الله ممنوع على الدم دينو دنج كون نيرو لك قبل اك بعدو آه. آه. سو ما فك دا حذف مضاف اليه بي يني معنا برك واي ينو في بعد سو لا غير رك ينو لا غير نانغام لا غير رك سو في ينون بعد بنك دا في مين بعد بنك ni ki laa xayru ka laa xayra ka waaye waxuma ku dul mm. waaye fii ne yéen woo fi dara moo tax dañ koy binaal ci dam mm. dañ ko inrab mm. dégg laa xayru laa laa naafiya la danañ jàng loolu moom ne war a damm eh, loolu mooy atteb foofu wal mustasna wal mustasna de والمستثنى وأعرف في المستثنى مبتر ومفهوم راه مضرب الدم المقدر ألف منام زور التعذر بعرف جر خلا اسم مجرور جيغون خلا حرف مبني على السكون في محل جر ببا وعرفات في هذا معطوف على خلا والمعطوف على أه، وأرفعت عدا معطوف على خلا مبني على السكون في محل جر وأرفعت حاشا معطوف على خلا مبني على السكون في محل جر dégg nga يوم اي اي اي اي اي حرف ay xaraf lañ ci yenn wax يجوز فعل مدار مفهوم ولا مدار في مثل الزائر على آخرين نصب فاعل يجوز مفهوم ولا مدار في الدمة الظاهرة على آخرين دين وعرفات جر معطوف على نصب والمعطوف على مرفوع مفهوم وهو مطرف الدم متزاير عقلي نحو قبل أن يمطر المعطوف تقديره وذلك قام فعل معلوم على الفتى القوم فاعل مرفوع وهو مطرف الدم متزاير عقلي خلا فعل ماد جامد لنقل أم مدار أم أمر مبني على الفتاة من مقدر عقلي وفعل دمير مستتر تقديره هو زيد المفهوم بمنصوب ولا متصل بالفترة ظاهر آخره ولكن خلا حرف جر زيد اسم مجرور بخلا ولا متصل الكسرة ظاهر آخره واو حرف عطف عدا معطوف على خلا ودفاع المعلم نتكس فعل المعلم على فترة مقدرة على عقله وفعل ضمير مستتم تقدر هو أمرا مفهوم به منصوب ومنتسب الفترة زار على عقله ولغني عدا وعرف عرف عدا عرف جرم ممنوع على أمر اسم مجرور عدا ولا مرجري الكسر زار على عقله وحاشا بكر وعرف عاش في الماضي مبني على الفترة المقدرة على وفاعل ضمير مستتر تقدير هو بكر مفهوم بمنصوب ولكن حاشا عرف جر بكر اسم مجرور بعاشا ورا مفتري الكسرة دار آخرين وإحنا ما جيت وخلا أقعدا سو بعد كوي دم كوي دم كوي دم كوي كي نصب رك ما دوك جيتو ولا حول ولا قوة إلا أريد الإسلام واستعنت وما إلا بالله علي توكلت وإليه أنيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم ورن كيلو؟